Sadi Thiamé ñoo ngi lay nuyu bu baax di nuyu sa yooyu heure fala gi nga xam ne ñu ngi fi en terme de couverture ah, suñu impression tey ci vote bi en tout cas on nous a constaté que ne ah, fekk ñu fi affluence euh, de toute manière parce que nit ñi dañu fa am ñu teel ñëw ak ñoo xam ne ni dañu nekk suñu ginnaaw waaye li ñu fekk daal mooy ne amaguñ affluence tellement loolu nag dina yaakaar naa impacté ci li ñu wax euh, taux de participation te ñu am yaakaar que aussi nit ñi dinañ gën a ñëw pour euh, def ci seen devoir parce que nag quand même il est de la responsabilité individuelle de chacun pour que def seen devoir joxe seen lii nga xam ne yi euh, moom la laaj pour Sénégal. mais ban message nga xam ne ñooy bi waaw message bi ñu la ñu rek mooy euh, ñu farlu ñu farlu ñi nga xam ne ñu ngi seen i kër. tey dimanche euh, jour bi yàggoon nañ ko jàpp que ne tey la def élection yi donc ñu ngi leen di ñaan ñu jàppoon tamit ñu bàyyi ko xam ne wareef la si kenn ku nekk surtout ay sénégalais nga nekk ci âge de vote pour nga ñëw joxe sa kàddu ci lii ñu lay laaj ci ñan la ñu war a samp ci assemblée nationale en terme de législature donc ñu ngi woo daal képp koo xam ne kii électeur la euh, te nekk ci kër yi te ñëwagul leen laaj ñu ñëw. def si seen seen devoir accomplir seen devoir citoyen muy voté joxe seen kàddu wax ne aussi fa la ñu jiw la ñu faral wala jiw la ñu keneen la ñu de paix bi ngay lancé waaw message de paix bi am nañ ci yaakaar bu baax parce que Sénégal yàgg na nekk un pays boo xam ne am na tradition de vote. donc l'élection euh, est ni ñu normalement en tout cas li fait que fini. nii euh, li aussi dans la presse mooy ne ci une localité est que bi mu fait fay jaar ci avec calme sérénité et ñi ñu ngi ñëw di qui du voté du génn du dellu Alors, notre euh, tradition sénégalaise, la ñu magnifier parce que l'administration électorale du Sénégal tel humilié na tellement que euh, lii nekk na loo xam ne dañ koy def pratiquement mu xaw nekk routine ci ñoom mais nag euh, li ñu si euh, dellu bi pointé du doigt surtout di joxe ñu mooy ne nit ñi war nañ gën a ñëw accomplir seen vote ñu def ko dans la paix ci jàmm ak salaam parce que